yàlla moo ne woon selbe jamono booba kenn du ko ci faagaagal Selbé dina dina dund ba fekkee bi Yaya Jammeh di di di wàcc. a ah, xanaa ay waa këram jabaram bu njëkk dee fi ñëw waaye nag sant yàlla rek julli si yonent bi bañ ko mënee eh, eh, eh, dund ba ko nettali loo toog ba di ko nettali rek jig na la sant nañ ci yàlla julli si sant Sëriñ Tuubaa sunu wasila macha allah. wante eh, Yaya Jammeh na xam ne moom day wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Yaya Jammeh bi muy jël nguuru Gàmbi carte falul Yaya Yaya dafa coup d'état fekk fa ab président coup d'état ko dàq ko kooko daw di jot bakkanam mu ñëw toog peuple gambien yi ànd ak moom mu neex len mu nakar len ñu dem pat nangul ko ñaar fukki at ak ñaar yalla mi nga xamne dara tawu ko mu teye nguuram di ci def li neex di ci dogal li neex di ci wax li ko neex at mu ne Yaya Jammeh changé tur jikkaam bi yéen bëgg ko ci ak mom nit ñi and ci ak mom parce que yalla mo dogaloon ne de la république du bi yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko war koo jeexal muy jonganteeg aadama Barrow ñu ne Adama Barrow gañe na ko ci ay xob comme niñ koy defee fii ci suñu réew ak Amérique ak yeneen di réew mu gañe ko Yaya Jammeh toog ne moom nangu na félicité na aadama Barrow toog ba mu yàgg mu ne loolu dootu ko defati man yaakaar naa ne yow yaaya Jammeh gor nga man yaakaar naa man Selbé Ndom ne Yaya Jammeh dangay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi di jëre kaamil alquran nga xam ne nee nañ ci koor la alquran kon maanaam te dem nga màkk ziar nga muhammad rasulullahi nguur benn rek mooy ci dul jeex muy nguuru subhaanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo bi bind di ñu may ñu noyyi du ñu may ñuy dox di may ñuy wax kooku rek moo dul moo dul nguuram moo dul jeex dimbale ñu lillahi walla suul wali rasulihi bi nga xam ne moom nga gëm te am naa yaakaar ne sama interview man Selbé Ndom boo ko déggee yaay di nga bàyyi réew mi ci jàmm ak salaam dem ci jàmm bàyyee Gàmbi jàmm ndax Gàmbi bëgg nañ la fal nañ la ñaar fukki at ak ñaar lii la yàlla dogal nangu ko moo gën leneen li nga xam ne dafay ñëw dewuma Gàmbi waaye xam naa ne pale ba ca càmmooy galam moom moo la may féete bu ma toogee fii sama kër gi càmmooy la may féete dama gisoon Yaya Jammeh jóge Gàmbi daw dugg biir senegal nekk ci pantere bu ndaw man Selbé Ndom maa fa fekk Yaya Jammeh génn ko teg ko ci charrette bi ma koy teg ci charrette ñu dem ba jub wetu dëkkam côté càmmooñ ci laa jël mbaxane ma ne ko def ko ci sa kanam pour ñu bañ laa xàmmee kon yaayaa nga def ndànk rek jàmme ñun sénégalais yi kenn bañu yaaya damay dégg ñu naan sénégalais dañ maa bay dañ ma bañ kenn bañu ko jullit la doomu aadama la bu nekkuloon jullit sax doon leneen doomu aadama la comme ñun ñun ñoo yem àdduna góor ak jigéen ñoo fi nekk. te moom rawatina moom dafa nekk président boo xam ne dafa bëgg a lislaam l'islam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fi jógee abu Aboubacar dafa toog yenn saxaaba yi ñëw toog xalifa yii Sëriñ Tuubaa bi mu fi jógee da am keneen ku mu fa bàyyi keneen fu mu bàyyi xalifa Seydi Hadj Malick bi mu fi jógee am na keneen ku mu fi bàyyi am na keneen ku mu fi bàyyi waaye maa ngi koy ñaan lillahi wali rasulihi bu fekkente ne mi ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammad rasulullahi yaaya bu fekkente ne yaa ngi wax laa ilaha illa allahu muhammad rasulullahi bu fekkente ne loolu sa dënn bi maa ngi lay ñaan lillahi wali rasulihi nga bàyyi nguur gi ci jàmm ndax maanaam mbir mi léegi carte la gañe nañ la nangu nga ba félicité maa ngi leen ñaan lillahi wala wali rasulihi en tant que doomu aadama comme yow nga bàyyi ci jàmm ak salaam moom moo gën doomu gor nga doomu lakkat nga keneen toog na yàlla moo la folli jox na ko keneen nangul te yàlla rek tax jàmm am Gàmbi adduna bi yëpp fi mu ne nii kenn amatul jàmm ñu ngi xalaat citoyen ak citoyenne yi nekk Gàmbi ñëpp ñu ngi leen di xalaat situation bi nan lay mel kenn nelawatul ay kilifa ñëw nañ toog waxtaan ak yow defal yëfi jullit yow jullit nga ndax yëfi jullit ngay def yëfi jullit ngay wax kon maanaam loolu nga commencé woon ba Gambien yëpp bëgg la ngay jël say butéelu ndox di leen sotti ñuy ñëw di la si jootal maa ngi leen ñaan lillahi wali rasulihi bu fekkente ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammad rasulullahi bii ngay wax yow yaa jàmme bu fekkente ne mi ngi sa dënd bii maa ngi leen ñaan nga bàyyi te yàlla rek tax te xam ne yàllaa ko jeexal nguur yàlla rek moo fa dul jeex su nekkoon président Macky Sall tamit nii laa ko koy waxee bu nekkoon beneen président aussi ci kattanu yàlla nii laa bu doon Obama mais ci kattanu yàlla noonu laa koy waxee ne bu fekkente ne gëm na loolu mu gëm na bàyyi ndax jàmm ci la lépp xëj. adduna bi képp kuy doomu aadama rek man Selbé Ndom bëgg naa la ba ñu ma kenn maa ngi lay ñaan lillaahi wali rasulihi nga bàyyi rek nga bàyyi rek ginnaaw yàlla def na nangu woon nga ne gañe nañ ñu la ngoor googu nga amoon ba tok ba taxaw ne li gagne nañ la ma ngi lay ñaan lillahi wali rasulihi yow yaay jàmme nga bàyyi te yalla rek tax xam nga aduna euh, bi léegi dafa changer nit ñi léegi seen xel dafa dafa dafa ci wat développement dafa am ci aduna bi sa yu xiyé ci xel di gëna match sa yu xiyé motax def lu bax rek mo am solo ku ci yalla fal bul xool fal ba ndax xaalis ba nga cay am doo ko yóbbu ki sa bàmmeel oto ya ngay am doo ko yóbbu ci sa bàmmeel kër yaa nga cee am doo ko yóbbu ci sa bàmmeel li nga ciy am mooy jëf ju baax ji ngay defal nit ñi yërëm sa sa sa dëkk yërëm sa peuple yërëm peuple jàmbur bi nga xam ne war nga leen mën a dimbale man de je suis fière d'être sénégalaise alhamdulilah rabil alamin ba ñu amee président de la république boo xam ne maanaam muy Macky Sall man mii ba balaa moo nekk président sax loolu dafa nekk ci moom ndax yëmbal fii ba may daw di ko hôtel ñu bëgg maa téye dafa ne leen bàyyi leen ko mu ñëw téye sama ñaari loxo kooka du reye kooku du def nit dara loo xam ne dafa bon kon maa ngi ñaan Yaya jàmme ah lu ko ci mënti fekk bu fekkente ni génn na ci jàmm yoon sax mën na ko ndax àdduna bi yàlla moo xam rek li muy li muy li muy def waaye ginnaaw yàlla def na moom ñàkk na na bàyyi rek moo gën nga bàyyi rek moo gën waaw mën day lool loolu laa ci am xaw ma nag dañ koy atte xaw ma dañ ko àtte parce que moom moom pare na na dem jox keneen ci jàmm ak salaam tàggatoog waa Gàmbi Gàmbi xam nañ mëbatam ci ñoom fal nañu keneen nañu na ko bàyyi mu toog ñu xool keneen moo gën xëccoo bi ak xiiroo bi bali nar a tàkk wala leneen leneen di di di dal ci ay jàmbur ay innocent loolu jaru ko àddina jarul loolu ndax kenn du dee ba yóbbaale sa benn yére bu baax doo yóbbaale jasineer doo yóbbaale ganila doo yóbbaale alal ja doo yóbbaale or doo yóbbaale immobilier doo yóbbaale xaama oto yu baax yi dara doo ko yóbbu sa juróom-ñaari mètre percal bu dee président wala muy ministre wala muy dof ba ca mbedd ma wala muy selbe selbe dof mi ñun ñëpp bu ñu deewee kii suuf lañu lañuy dem te juróom-ñaari mètre percal rek ñu topp àddina jarul jarul lenn li man day dama koy ñaan bu fekkente ne yow Yaya Jammeh ashhadu an laa illah illa allahu wa ashhadu anna muhammad rasulullah bii ngay wax te yore sa kaamil bii maa ngi leen ñaan ginnaaw eh, félicité nga woon rek maanaam xamal nga ne xamaloon nga ne yow yow mii kat ñàkk nga maa ngi leen ñaan rek nga bàyyi billahi wal rasuli kenn du la forcé Jammeh kenn du la forcé xam nañ ne borom xol nga xam nañ ne borom doole nga waaye nag xamal ne ah dindi na la fa nangu nga ne yàlla dindi na la fa ba ñëpp seen xel yi dal kon continuer ko rek man moo ma gënal. déedéet xam nga tey jii euh, euh, ñoom mbokk mi ak ñu farat ñoom ñoom xam nañ dëgg gi xam nañ dëqulil xaq wala kaanamu ren xoolal ñëpp xam dëgg. ñooñu duñ ca dugal seen gémmiñ dañuy xool ndey mbilli gi nga wax ne taxaw ne nee na moom day nañ nga xaaj nangam nangam moom lañ toog seen waaye ñëpp xam nañ ne annoncé nañ ko ñun ñii fii dëkk bi États-Unis adduna bi yëpp ndax léegi média dafa dafa doy waa lu xew fii tey balaa guddi mu dem fanaani États-Unis wala mu fanaani Angleterre wala mu fanaani feneen fi mu ne nii développement dafa am kon maanaam ñooñu xam naa ne moom duñ ca wax duñ ca xëccoo moom mii ndey mbill gi moom la ñuy toog di seetaan rek ah, man li ma gis mooy maanaam ah, ba mu baaree eh, ba mu baaree eh, bag bi di fayee ko 400000 merna lol man dama pas personnel merna lol bané ñaan Macky Sall euh, sun président de la république na def pont def autoroute à péage man ko koy ñaan ci barké la ilaha illa muhammad rasulullah manam pour mu def ko nga xamné Sénégal yi joggé fi di daan sen doole di jëlé Gàmbi di indi fi yalla mëna def manam fi li ya bëgg yalla défal lén ko waaw lol mom ñaan na ko ci amna na bo xamne tam meron na ki touti parce que affaire ñaari julli yim doon wax loolu yag na ci adina, loolu loolu yag na ci adina papa loolu yag na ci adina, man de buma juddo ba tay yeen say day am ñaari julli waye lam ca wax ba ton jambour di suma doon yaaya jamm dina dem eh, balu Serigne Sidi Makhtar Mbacké c'est pas parce que je suis mourite c'est pas parce que parce que damay ubi internet bi man damay seetaan ay interview waaw na dem parce que dama tëdd ba guddi ma gis sëñ Sidi Maxtaar toog yaay jàmmee taxaw tàllal ko ay ay ay loxo xëy na bu demee ci sëñ Sidi Maxtaar la mu lal yëf na mu war a demee yëpp dootul demee noonu am nañ ci yaakaar ci yàlla su ma gisoon ci waa kër Seydi Hadj Malick wala ma gis ko ci waa kër Bou Kounta Ndiassane wala ma gis ko ci waa kër maam Limaamu Laay wallahi alazim billahi lazi laa ilaha illa huwa tam noonu laa koy waxee na fexe dem ci sëñ Sidi Maxtaar mu ko mu gën parce que am na yu bëri barage bi mu bari aussi neexuñu woon te Yaya Jammeh nit la. waaw nguuram damm na at nguuram jeex na at te su ma doon moom le trente rek ci kàttanu yàlla dinaa jël samay bagage ma génn ma bàyyi tàggu Gambien jaajëfal leen jéggalu leen jéggal leen. man su nekkoon man Selbé Ndom loolu laay loolu laay loolu laay El Hadj lan la El Hadj Diouf lan la avocat la nee na mooy le maître du peuple El Hadj Diouf ku xuloo ak moom yaa ko tooñ El Hadj moom ku xuloog moom yaa tooñ El Hadj xam nañ ne xumb xumb El Hadj xam nañ ko coow El Hadj xam nañ ko salañ salañ El Hadj xam nañ ko kon bu ko kenn bu ko kenn tontu nañ ko bàyyi noonu non moom xam nañ li mu wax mënta nekk. nit ki lu métti métti rek ak lu mu métti métti rek taxawal jaare ci digg même bu nekkee dañuy jël paaka di teg sa put foofu El Hadj Diouf moom El Hadj chefu boppam la kon man vraiment du ma bëgg a tooñ sax euh, di di di wax leneen mais li mu waxoon d' accord ma ci je man dañ may bind ci sama whatsapp am ñu may woo téléphone di ma wax meer loo xam ci gambi nangam nangam ma ne leen yàllaa leen def ñu nekk ay gambien. am na président bu fa njëkkoon a nekk bëgg gàmbien yi lool fonk gambien yi lool gàmbien yi tubaari kàlla xàppi Yaya Jammeh ñëw coup d'état président booba daw yàlla mi nga xam ne dara tëw ko. mu rëcc ci bakkanam sowe yaaya jàmme toog di diriger Gàmbi di diriger Gàmbi ba mu am ñaar fukki at ak ñaar yàllaa ne nguurug yaaya jàmme jeex na baro dina ñëw baro bu fa waree am benn at ñaar at ñett ñeent at ba téeméeri at it da ko fay am nguuru yàlla rek moo dul jeex Euh, euh, xam nga euh, affaire président daf doy waar mbirum président moo doy waar président na yaatu président na baax président na am yërmande ndax njiit la bu yàlla teg njiit la bu yàlla teg su ñëwee li li Gambien yi bëgg na ko def na jël Macky Sall def ko xarit def ko conseiller def ko doomu ndey fi ne nii am na ñu bëri ñoo xam ne ñemewuñu woon dem Gambie benn ci man musuma dugg Gambie te gàmbi rek laa bëgg am naa fa ay client ak i cliente mais ñemewuma dem Gambie am na ñoo xam ne ba tey ñemewuñu dugg Gambie kon maanaam Barrow bu fekkente ne yàlla mi nga xam ne dara tawu ko teg na ko fi na ubbil boppam Gambien na leen jàppale buum leen buntu xataal buum leen toroxal na xam ne nguur gi yàlla moo ko jox te bis dina ñëw yàlla dina kon nangu ci loxoom jox ko keneen président noonu la nguuru gi yàlla rek moo dul jeex ci àddina waaye geneen nguur goo gis gu ne wallahi alazim dina jeex waaw kon ñu xame ko noonu xam ne yàlla mooy joxe yàlla mooy mooy mooy maye yàlla mooy xañe ku ñu xañ nangul te xam ne yow mii xañ nañ la ku ñu may xamal ne ah yow mii kat may nañ la buñ la mayee bul beew loo am bokk ak doomu aadama te nga xam ne la nga ci am yépp doo dugg ak moom bàmmeel ñu dill suwaat suñu xel ci yàlla ñu dimbale ñi nga xam ne ñoo leen tane ñi nga xam ne am nañu nañ dimbale ñu amul dimbalante moo baax di jéggalu tey wax jaami yàlla yi nañu xoolaat sunu bopp ñun waa àddina bi sax lay wax nañu xam ne ay nit rekk lañu li ñuy nelawloo duñ ko xam tey jii su la laajee lan moo lay dox loo xamoo ko li nga xam ne moo lay wax loo xamoo ko sa cër bii lii tax nga di ko yëkkati xamoo ko li lay feebar xamoo ko li lay wéral xamoo ko kon maanaam nañ delloo suñu xel ñu ñëpp delloo suñu bopp ci yàlla ndax lépp yàlla la ak yant ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ne doomu aadama muhammad lañ ko bindee mala fas nag xar maanaam ñi ñeenti tànk yi allahu lañ ko bindee kon nañu xoolaat suñu bopp te yéeneente jàmm tey waxalante jàmm di ñaan yàlla réew mi àdduna bi yépp sax laa wax yàlla mi nga xam ne moo ñu moom moo ñu bind moo ñu sàkk wàcce fi jàmm ci barke laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla bàyyi fi sunu xalifa yi te jaami yàlla yi ni ñuy génn di wax ñu nekk ci télé yi def ab thème waaye utal thème boo xam ne maanaam dafay yee doomu aadama yi ñi nekk ci biir sëy di sëy nañ la ñu war seen jëkkër nu ñu war a traité seen jëkkër nu ñu war a traité seen goro moo ëpp important nekk ci télé yoru micro di ŋàññi nit koo xam ne mënoo koo dugal àjjana mënoo koo dugal safara alhamdulilahi rabbil alamin ba yàlla moom moomee àjjanaam ji ak safaraam si doomu aadama su moo mën àjjana wala safara kon xam naa ne am na ñu bari ñoo xam ne du ñu dem du ñu dem àjjana yal nañu yàlla jàppale te ñaanal salaam yàlla defal ko jàmm yow tam ñu di la ñaanal yàlla wàccal la ay xéewal liggéey bi yàlla def ci barke ci barke Muhammadu Rasulullahi mais loi bi Macky Sall teg léegi kontaan naa ci de sàllam toro euh, buur gedde lañ koy wax yal na ko fi yàlla bàyyi ci barke yonent bi loi bi mu teg léegi neex na bu ko defoon bu njëkk kon Sénégal du toj waaw am na fi nekk rek yàlla baax na liggéey bi rafet na man ko an ana naa ci li mu def ni train bi kontaan naa ci inondation yi yi nga xam ne moom laa teg sama bët bii autoroute bi baax na bu defee lu bon nag dama ko naan kay eh, président li nga def nangam